بسم الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <coughs> وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم نيجي تيري بي رياض الصالحين في الدرس الثامن انا ابي عبد الله بن نيجي باي عبد الله حذيفه بن اليمان رضي الله عنه ما يلي على قرم لنا قال حذيفه نيه salaytu julli naa ma annabi ànd ak yonent bi salaatam zaata laylatin benn guddi Xusayfa mu ànd ak yonent di julli fastataha mu ubbi albaqarata baqara yonent bi commencé jàng mu neex ah Xusayfa ne fa qultu ma ne yar ko mën naa am day rukkoo indal mi ati bu amee téeméeri aaya <coughs> mu téeméeri aaya sama mu daa topp mu wëy téeméeri aaya jeex yonent taxawut fa qultu ma yusalli dafay ci bàqara fi rakaatin ci rak xam nga bàqara rek juróom isib la mën naa amaana bàqara bi ci benn rak yonent bi dem ba su sa ma daamu continuer fa qultu jeex su ma tataa mu bi an nisa soo nisa fa qaraa jàng ko daf ne yusalli day julli biha ci baqara fi rakaatin ci benn rakk fa daa mu continuer <coughs> dégg maanaam baa ci baqara fi na mu si lépp day jeex xëy na saaru baqara bi bu maanaam xit bu baqara bi bu jeexee mënu ko mu continuer dégg nga waxultu ma ne yerkoon rukkoo baa ci baqara su baqara jeexee mu mu mu mu mu mu su ma fasaa mu tudd nisaa nisaa fii nisaa la jàng njëkk a jàng ci Ali Imran fa qaraa mu jàng suut nisaa mu jeex su ma fasaa mu bi Ali Imran xam nga Ali Imran moo fa nekkoon waaye waa ji daf ne yonentu bu amee téeméeri rakk téeméeri aaya dana rukon téeméeri aaya jeex rukon waaw amaana kon dana bu am bisaar bi jeex isib bi jeexee mu rukon rukon wut man amaana bu baqara jeexee mu rukon faqara jeex mu ubbi nisa faqara mu jàng ko nisa jeex mu ubbi Ali Imran faqara mu jàng ko ñetti saar ci benn rakk baqara nisa Ali Imran lépp <coughs> yonentu jàng ko ci benn rakk moo tax mu ne salaytu julli naa ma nabi ànd yonent bi salaa sallam zaata laylatin benn guddi faftata mu ubbi <coughs> maanaam mu commencé البقرة سورة البقرة فقلت من يركض أنا ركوع عند المئة بعمل تمر ركع ثم ماذا تفموي فقلت من يصلي ذن جل بيات من في ركع ركع ركع فماذا موي فقلت من يركض أنا ركوع بها تبوس بقرة جيخة ثم تبعي نساء نساء faqaraa mu jàng nisaa su ma fata topp mu ubbi Ali Imran faqaraa mu jàng Ali Imran yaqaraw day jàng mutarassilan day aji tajwid tarassul mooy tajwid yonent bu daan jàng jàng mu teey xaraf yi dafay feeñ mu jox xaraf fu nekk xaqam génne ko ko war a génne imagine ñetti saari guddi nga di ko jàng nànk yemul foofu isa marra bu rombee bi aayatin ci aaya boo xam ne fii haa nekk tasbihun sabbaal sabbaxa mu sabbaal bu jàngaan ba ci laaj yoo xam ne dafa am dafay wax wa sabbaal léegi mu sabbaal ne subhaana rabbiyal aala wa isa marra bu rombee <coughs> bi suaalin ci barab bu ñaan saala mu ñaan bu rombee ci barab boo xam ne dafa war a ñaan yàlla mu ñaan soxla ni ki bu rombee ci barab boo xam ne dafay wax ci aljana mu ne allahumma inni asaluka aljannata bu rombee loo xam ne yërmaande yàlla la mu ñaan yàlla yërmaande googu luy wax ci xewal yàlla mu ñaan yàlla xewal wa iza marra bu rombee bi taawudin ci muslu taawuda mu muslu ci aaya joo dañ si war a mu muslu léegi mu romb yàlla xalagoon dégg nga mu ñaan yàlla mu musal ko ci alkaali mu romb meram yàlla allahumma inni a'udhu bika min ghadabika mu romb tëkku safara yooyu mu ne allahumma bi doon def su ma rakkaa mu door ko xam nga ne julli gi yëgul de kon nag fuqaaw yi bu ñu la waxee ne la yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na boo jiite nit nit ñi na nga gàttal mooy bu dee ci jumaa ja la ndax xamoo ñu ngay jiite bëgg nañ nga gudd lam déet ma waaye boo nekkee sa kër di ji di julli nit fekk si la pour roy sa yow yow ni la neex ngay jullee fii yonentu këram la nekkoon du julli jullee Xuseyfatu moo ne moo bëgg a julli yonentu wàññiwut nam doon jullee ngir topp rythme Xuseyfa dafa continuer di julli nam daan jullee moom Xuseyfa ba nga yàkkamti mu rukkoo sax waaye taxul mu rukkoo kon boo nekkee sa kër di julli nit ñëw roy la julli parce que moom at ñu rek beneen yoon du ñëwaat bu soppi noonu ndax mbir moom mais boo nekkee si jumaa ji nga xam ne foofu barab lu bu ñëpp di dajé nit ñi dañuy am soxla ñi féra gattal julli moom mo ñoom ñëpp ñu dëppone la guddal su ba mën nga guddal waaye fii tamit da nga ci jàngee ne toppalante saare warul ndax baqara la jàng teg si nisa te baqara aali imran moo si topp allahuma lu may ne lii dañ koo xolli parce que la la mu mujjee daal mooy saa yoon da ko daan toppalante bu jàngee baqara ci gàttal aaleem laa la si daan faree suuf du jàng rakk bi maanaam njëkkee saaru euh, suuf door a jàng saaru fare kaw loolu bokkul ci mujj jëfam daal kon mën dañ koo folli wala nga ne ñaar yëpp dagal rek ñu ko jàng naasi door jàng falax hmm? nga dégg ci ne ci biir julli boo jàng alxuraan ba romb foo xam ne yàlla dafay tëkkoo muslim yàlla ci loolu muy tëkku dafay dige ñaan ko loolu muy ko màggal màggal ko na ko sàbbal sàbbal hmm? lii mooy wara ne kon naafi la nga jàng ci xat mu dagan na xam nga gis ni ñu def weeru koor buñ jàngee naafi buñ naafila ba ci ràkk bu mujj bi léegi dañ ciy dugal xatm bi xatmu lan la ñaan yàlla màggal ko moom la yonent doon de waaye daraan ñaan yàlla ci biir julli naafila ci taxawaay bi kon nga jàng ba pare def xatmu bëgg yooyu ñaan ci yàlla màggal ko loolu dara lay la ci dégg ah nekk ci farata waaw bokk na ci farata borom xam kon lii nii boo ko def ci farata kenn doonu ko aay waaye daal ko def moo gën ndax yoonu si naafe lañ gisaan mu ko ko ci farata duñ la ko aay waaye boo ko defut duñ la ko digal waaye nag ñàkk koo def moo gën ndax ci naafil lañ gisaan mu ko daan def dégg <coughs> su ma rakkaan topp mu rukkoo nag fa jaala mu commencé yaqul di wax ne subhaana rabbil azim kon bu rukkoo lii la daan wax na ma sallab rabbi sama borom al azim bi aji mag fa kaana mu nekk rukkoo rukkoom naxwan di tolloo min qiyaam yi ci taxawaay loo julli ko gudd taxawaay bi mu fa jàng faatee ba mu jeex teg sóotul baqara teg sóotul nisa delluwaat jàng Ali te bu yeggee ci laaju war a muslu yàlla muslu ci bu yeggee ci laaju war a ñaanee ñaan bu yeggee ci laaju war a sabbaalee sabbaal te danaan jàng tajwiid ah xam nga ne kon làkk yi gudd na de mu rukkoo nag rukkoo gu toll ni taxawaay ba maanaam bokk na ci njubam yonent bi sallallahu alayhi ci julli julleem yëpp day tolloo salaatun mutanaasibatun ñu taxawaay bi yàggee moom la rukon bi yàggee salaatun mutanaasibatun su ma xaal topp mu wax sama dégg na allah wel ni man xamidu ñeen ko ko sant rabbana yow suñu borom lakka ñeen alhamdu cant moo tax kenn ku jiri ñaari lay boole sami allah liman xamida rabbana lakal hamdu ñu ngi fii rabbana lakal hamdu amul waaw la wax ñaareel ba mu siggee ñaareel la wax sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd ba mu siggee nu mu def su ma xaamu taf mu taxaw xiyaaman taxaw tawilan bu gudd xariban bu jege mi ma rakan ci nam rukkoom ba mu siggee dafa taxaw taxaw boo xam ne jege na ni rukkoom mais salaatun mutanaasiba taxawaay ko xamee mu rukkoon rukkoon taxawee sigg sigg bi moom taxawam noonu lay sujjóotee sujjóot bu dem ni rokon bi sigg sujjóot bu dem ni sujjóot ba boo xoolee julli bi yëpp daanaka day tolloo dégg su ma xaamu topp mu taxaw xiyaaman taxaw tawilan yu gudd xariban bu jege mi maarakan ci ren su ma sajada topp mu sujjóot sujjóot bu gudd tamit si sigg sujjóot bi day gudd fa qaala mu wax si sujud bi subhaana rabbi tudd na tudd naa sell ak sama borom al ala gën a kawe wala bu kawe sellal yàlla mooy lan mooy lépp lu jaaduwul ci yàlla bokk naa ci ñu ko daqal setal na ko ci fa kaana mu nekk sujudu sujudam qariban di jege min xiyaam yi ci taxawaay moo tax julli yonent bi salaatul mutanasiba looloo waral ñu daan julli farata bu rukkooyee ba siggi nañu ne yaakaar dafa jamaj parce que dafay taxaw lu xaw a diire bañ yaakaar ne si sax dafa juum mu door sujjóot waaye ñun dañuy sigg rek sujjóotaat taxaw tuuti ba sax boo yàkkamte naan ah mbaar dafa juum di jàngat ki mu door sujjóot jullee mi dañ xaw a tolloo boo ko xoolee daanaka rukkoon yi sujjóot yi sigg ci rukkoon yi sigg sujjóot yi daan tolloo bu guddalee taxawaay rek day guddal rukon ak sujjóot bu gàttalee taxawaay gàttal rukon ak sujjóot hakaza kaana yusalli sallallahu alayhi wa sallam rawaahu soloon xadis bi muslim kon <coughs> lii daf ko indi ci buntab jihaad ndax bokk na ci jihaad nangoo sonn ci jaamu yàlla loolu ci lan la bokk ci jihaad nangoo sonn ci jaamu yàlla ah yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf daan sonn te moom wóor na ko mucc na kon daf daan daw di sonn ci jaamu yàlla yi ngir sant yàlla yow nag mi nga xam ne sa mucc moom leeru sax sonn pour mucc la kon war ngaa gën a góorgóorlu tamit sonn dégg yonent yàlla jéggal na ko bàkkaar yi jiitu yi nga mujj mu daan julli julli bu guddee nii ba léegi-léegi tànk ndax lan ndax sant yàlla yow nag mi nga yow sax li ci la ndax ci xamagoo bàkkaar yàlla baal na la comme déet ah war ngaa mën a sonn tuuti nag kon pour pour mucc da ko wane ci buntab sonn si jaamu yàlla war na jaamu yàlla dañ ci war sonn de bu bu def nag li gaa yi def nga xam ne nii <coughs> bëgg a tappale rek moo ñu ci dugal naan yonentu kenn mënu koo roy yonentu kenn mënu koo roy ba doon lim doon ndax lim doon may yàlla la hmm. waaye ay jëfam moom da koo jëf pour ñun ñu roy ko laqad kaana lakum fi rasulillahi yàlla nee na yonent bi mooy seen royukaay yow nga ne doo ko roy ci li mu def kon yow koy roy kenn du yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais dafa am jëf yoo xam ne da koo def nag pour yow nga jàngee ci yow bu demee bay julli julli gu guddi gii te yàlla jéggal na ko daf laa bëgg wax ne yow tamit góorgóorlu ba mu def lii tamit nga def lu ko jege wala nga def lu tene nga bañ a nelaw guddi gi yëpp daal ci gàttal. Hmm? moo tax imaam Buseyri moom mi comprendre li daf ne man de tooñ naa yë tooñ naa <coughs> daf bi nga xam ne daan dundal guddi gi ba tànk yi néew yi man may nelaw guddi gi yëpp kon moom xam na ne dañoo war a yonent bi ci julli gi loolu ci jihaad la bokk muslim moo ko solo xadis juróom-ñeenteel bi noonu la léeg-léeg mu julleeg Xuseyfa comme ni nga ko jàngee léeg-léeg mu julleeg Abdullah ibnu Masud comme ni nga ko jàngee nii léeg mu julli Ibnu Abbas da koy gis ci xaddis yi hmm? maanaam julli guddi daal bu daan julli guddi léeg-léeg dana am yenn saxaaba yu ñëw ànd ak moom taasi xaddis juróom-ñeenteel ba <coughs> yàlla ko yàlla gërëm xaala mu ne julli naa ma annabi ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam benn guddi fa taala mu guddal alqiyaama taxawaay xataa xamamtu ba ma yittewoo bi amri suuin bi am rin ci mbir soo in ñaaw lu ñaaw ci saxaaba yi nag mën naa bañ a nekk lu ñaaw ci yow ndax ñun dañoo yées moo tax ñun lu ñaaw ñaaw lañ xam ay saxaaba yi moom yenn yu baax yi mooy lu ñaaw li ci ñoom Ibnu Mas'ud ne dama ànd ak yonent bi sallallahu alayhi di julli mu taxaw taxawaay bu yàgg bu ma bëgg def lu ñaaw kële ñu ne ko ma xamamte ana la nga yittewoo bii ci moom moo ma ana lan mooy li nga xam ne xamamte yittewoo nga bii ci moom ñu ne ko loo bëggoon a def xaaral mu ne xamamtu yittewoo naa an ajli sama toog waa daan wu ma bàyyi ko <laughs> Ibnu Masud xale la nekk ci diggu doole waaye taxawaay bi yonent di taxaw dafa dem ba métti ci moom ba mu bëgg a toog maanaam bëgg a daw daal yonent bi daa julli rek mu ñëw ànd ak moom waaye julli gi dafa yàgg yàgg yàgg moom mu ngi bëgg mu ngi bëgg la wax rek parce que nee na moom mun naa bu nangam ndàngee nangam dana rukko mën bu jàngee nangam dana rukko ko xam nga ne su ma yoon daw <coughs> moom yonent bi sallallahu alayhi taxaw taxawaay bu gudd ci ba mu bëgg a rocceeku ba fa yonent toog ba ko ba ko mu taxaw daal xam nga julli taxawoo sonn toog mottali ko sax dara nekku si waaye loolu lu ñaaw la si taxaw ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam musuka am nga toog moo tax mu continuer waaye moom moo naa ñaaw la ci moom moo tax loolu la gaa yi di wax xasanaatul abraar sayyiaatul muqarrabiin ñi jege yàlla lu rafet ci yow mooy seen lu ñaaw lii yëpp daf lay jàngal ne nit mbaax du ko wees amul fooy toll ba ne man damaa war a tayal damaa war a sàggan damaa war a def lu ma neex ah parce que yàlla may na ma nangam heggal na ma ci maqaama nangam wala may nangam may nangam déedéet ak koo mën a doon xanaa nag seenoo pëndam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa koo mën a goo doonagoo yonent bi te boo demoon ba ne yaay yonent bi tamit nii la daan def kon defal noonu yow it yaa ngi may dégg koo mën a ne yaay yonent moom nii la daan def defal nii kenn amatul ngànt ci jaamu yàlla la xadis yi bëgg a jàngale kenn am fenn fooy toll ba jaamu yàlla wàcc la bal noo gën a kawee rek sa jaamu yàlla noonu war a toll ndax may gu yàlla may danga ko war a sant kon boo ëppalee nit ñi may mooy yaa leen war a ëpp jaamu yàlla waaye ëppalee nit ñi may tolloog ñoom ci wàllu jaamu yàlla xeetu sàggan la alquran jàngal na ko ne fadkurullaha kamaa lan kamaa allamakum ma lam takunu taalamun yeneen seen laaya jooju zikrullahi moog julli benn la wa aqimi siraat bi zikri fadkurullaha tudd leen yàlla wala fadkurullaha jullil leen yàlla kama allamakum comme nu mu leen xamalee maa lam takunu lu ngeen nekkutoon taalamoon di ko xam kon nu sa xam-xam yokkoo noonu sa julli war a yokkoo xam lu bari di jaamu yàlla lu tuuti gàcc la yaa lu bëri di tudd yàlla ndax yàlla waxul la julli rek de jullil comme num la nu la xamale hmm? kon sa xam-xam nu toll sa jaamu yàlla noonu la noonu la war a toll yonent moo gënoon a xam ñëpp moo tax moo dàqoon a jaamu yàlla yëpp mm-hmm. waaye man dama yàlla daf maa may waaye léegi damay sàggan lu ma ne wax laay def man jërul may sonn si jaamu yàlla yi loolu seytaane moo la koy defalee rek loolu amul ci daayira yonent bi ci daayira seytaane la moom mooy ah yow de yow jërul ngay yàlla may na la mhm. Mhm. ah yow jërul ngay jaamu yàlla kooku seytaane du wax loolu ndax moom nii la daan def hmm? <coughs> yàlla yàlla jubal mhm. moom na moo jubal ku ko neex متفق عليه حديث بنت بول مو نيو نك تي حديث فوكل بي العاشر حديث فوكل بي عن انس جيرين تي انس رضي الله عنه يالله يالله غرم عن رسول الله مجد سيونت يالله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم قال يونت نه yet ba dana topp almayta néew salaasatun ñett nit bu génnee àdduna ñett koy topp lii nag mooy néew bu am alal maanaam du néew yëpp li ëpp ci néew yi daal ñett yi ñoo leen topp wala néew yi am alal yi ñett yi ñoo leen topp ñu ne ko kan ban ak ban mu ne ahaluhu ñooñam mooy mbokkam yi ku ñuy suuli sa mbokk topp sax bu dee am nga mbokk yu baax mbokk yu baax xanaa nag wax dëgg yàlla bañ bañ moom bu dee demee ba dee ñu koy suul danga ci topp kon bu ñuy denc néew mbokk yi dañ dem wa maaluhu ak alalam lañ na mu ci alal ji mooy jaamam yi ak ña ko doon liggéeyal loolu mooy ko alal am ay surga yu bëri boo dee ñooñu dañ la topp wala nga ne wa maalu mooy doomam ya parce que doom ci sa fàgg ci li nga fàggu la bokk comme ni nga xam ne alal ci li nga fàggu la bokk ah <coughs> yëpp bàyyi leen moom kon mën naa am alal doomam ya mën naa am alal ji mooy otoom yaag <coughs> dégg nga ak yenn bagage yi ni ñu dañ ko war fekk ko ba ci bàmmeel waaye am na ñoo xam ne bu ñuy dem bàmmeel du ñu yóbbaale benn alal parce amuñ dara kon ñooñu bokkuñ néew bi ñett koy toog mbokkam yi ak jaamam yi ak liggéeykatam yi wa amalu ak jëfam bu yaakaar ne nga defoon ci àdduna da dee ak mu toog fu mu toog de yow baa xam ne jëf yi day mujj soppeeku ay yëg-yëg yooyu yëg dee jëf yu baax muy xewal ñeexal la jëf yi yi day nekk jëmmu yomal xiyaamati bu dee jëf ju baax muy jëmm yu rafet ay pale ay nangam nga di ci xewal jëf yu bon nag muy jëmm yu bon rek mooy safara yi lay lakk <coughs> kon nit bu génnee àddina ñu koy denc jëf ya da topp mbokk topp ca alal ja topp ca fayar jama mu dellu islaani ñaar ñaar ñi ko ku xam nga ko waaye xaamu des waaxidun kenn kenn ay des ànd moom yàlla jama mu dellu alu njabootam mbokk tamit dañuy tourné wa maalu alalam tourné waaye xaamu des amadu moom la gars yi di wax ñetti xarit moom hmm? jëf moo lay topp ba sa biir foo dugg mu dugg waaye sa mbokk yi la gën a bëgg buñ leen fayoon alal ju bari na leen nañ la bàyyi ci biir kër gi ñu ne déedéet nañ ko génn suuli ko la gën a bëgg ñooy jël suuf sotti ko sa kaw ba pare wan la fa gannaaw kenn ci ñoom du am xelam du xalaat ñëw sulli la foofu lañ lay bàyyi mane ne dund bi lu neex neex ak sa xol bi loo ko jox jox jox nit ñi boo dee yàkkamte nañ génne la yóbbu la ci ab pax gas bu mu suul poussière beeg lépp faaluñ ko ñoom ñoom ñi la gën a bëgg ñoo jël suuf sotti ko sa kaw ba pare tourné walla gannaaw walla gannaaw kenn du la sulli buñ leen fayal xaalis sax ne leen bàyyi leen am leen xaalis bi bakku ci kër gi ñu la déedéet <coughs> foofu ngay mujj ak nit ñi de kon ngaa jox sa bopp yàlla ndax nit ñaara ku yàlla da nga tàqalikoog ñëw moom la waa joxoon soppal ku la neex mais bis dana ñëw ngeen tàqalikoo de te soppi boobu soo mën naa moo lay suul ña ca tene nag wala ña gën ñoom bu dëppee dañ lay ñaanal yàlla ba foofu duñ la mos a fàtte ñi ca tene ñaareel ab digg fàtte la ka gënoon a am naqar dàq jooy balaa yàgg mu commencé rey ak xaqataay ka la gënoon a bëgg nga xam ne ba nga génnee àddina dafa jooy ba yikkat te nekkul jooy jooy fen nag am am ñoo xam ne seen jooy dara fi ñu dëgg nit ñi di jooy rek ñuy jooy ñooñu moom ñu bon leen waaye ki la bëgg nga xam ne ba muy jooy sax ndeysaan teyu ko ba xool bi di tooy muy jooy tayu ko balaa yàgg rek nga xool ko gis ko muy xaqataay di ree mais c'est normal ndax musiba boo mën a am ñàkk gi ñàkk yonent yàlla Muhammad sallallahu moo ko gën a foor te ñu ngi nii di reetaan kon nag keneen bu génnee àdduna ak lu mën a xew da ngay jéem a muñ muñ googu ak ree ak ree googu ci gëm yàlla la bokk maanaam loolu du xas sa nag suufewu ma la bëgg a wax rek ne la <coughs> bul def àddina kër nit ñi jëflante leen ñoom ngir yàlla mais bul jël sa lépp jox leen ko waaye waxuma ne bu nit génnee àddina dafa bokk ci ngor ak dignité mooy bu ko fàtte bul ree bul def nangam déedéet dee ko ñaanal yàlla waaye nag mais dellu si waatal nga defal sa bopp xam ne lii c'est normal dund ak dee ñoo ànd loolu moom mënu see ñàkk na moom ak moom dañ ngeen dégg darsu bi rek bëgg jël benn néew juróom fukki at ngeen du ko fàtte ngeen koy jooy loolu bu yàggee muy musiba dégg fàtte ci jaamu yàlla la bokk ci sant yàlla la bokk mais ala kulli haal doomu aadama dañ la fàtte ñu ci baax rek ñooy am ngor duñ la fàtte bay laay liggéey ci ñaar ñooñu ñooñu ñu lay dëkk ñooñu ñu ànd ak ñoom <coughs> waaye mbokk dañ lay wan gannaaw dëpp sa alal yi dëpp jëf ji fekk la ci bàmmeel jëf ji nag moom bu baaxee day dugg bu mënee day dugg bu baaxee day dugg pour mbugal la bu mënee day dugg pour wéttali la doomu aadama yàlla daf ko bind ci war moom day faree kaw rek lu tax parce que moom mooy waruwaay yàlla moo tax lépp yàlla daf ko tàggat mu nekk waruwaay pour doomu aadama maanaam yàlla ay santaanam yow la ko teg sa kaw ndoor dëgg la ko teg moo tax mbindeefam yépp mu jël la teg la seen kaw yow nag ni nga bëggee fas bi nangul la bëgg oto bi jaar si yoon bi affaire bi yomb bëgg yëg si lal bi du du la jam du fittandiku du def dara man nga war a nangu la yàlla di def ndigéri di bàyyi tere yi sans ngay bañ parce que boo bëggee dem tukki léegi war a jaar ci géej gaal ngay war te bëggu leen gaal bi diig bëggu muy yëngatu ba ngeen lab da ngeen bëgg mu tegu ci yoon normal dem yow it santaane yàlla teg sa kaw bul bañantu def ko ni ko yàlla bëggee yàlla daf laa tàggatal lépp kon na nga tàggatoo ba ñeel yàlla doomu aadama yàlla daf koo bind pour moom lépp yàlla daf koo bind pour doomu aadama wa saxara lakum la wax maa fi samaawaati wa maa fi ardi lépp lu nekk ci asamaan ak suuf rek yàlla neen tàggat naa ko pour lan pour yéen waaye yéen dañ leen a tàggat pour kan pour yàlla kon nag lépp nangul na la nangulal yàlla <coughs> da ngeen gas ci suuf si ba suuf si ne bu leen ma gas nag wi gën a rëy ëpp la doole foofu nga mën koo jël di ko liggéeyloo bu la neexee tër di lu la neex def yeew ko fii mënut bañ ganaar yi bu leen neexee rendi xar yeeg bëy duñ amuñ bakkan comme yéen fas yee leen ëpp doole buñ bañoon mënu leen ci dara yàlla tàggat leen tàggatal leen géej gi ngeen di ci napp di ci génne wurus di ci jaar di tukki mu tàggatal leen jéeri ji suuf si bu ko neexoon mu dëgër këpp ñu xeer kenn du ci mën a toog kenn du ci gas kenn du ci def dara bu neexoon mu nooy nepp ni géej boo ci dugg dégg boo ci taxaw dégg waaye xool ni ko yàlla bindee bu la neexee tëdd sax ci kawam toujours ngay wax léegi nag bu fekkee yow tàggatu woon na ñeel yàlla li la yàlla sant mu diis nga nangu koo def te xam ne la nga teg façon moo gën a diis fan lay fanaan fas <coughs> fuy fanaan jël gutti ndox barigoy ndox ay saako fekk ko naan ko ali caw yow tey bu ñu lu ma julli juróom naan dafa dis julli juróom jox la néeg boo xam ne tabax nañ ko moom baax di la jox lekk yi gën a tey ci lekk yi naan yi gën a tey ci naan yi ah? yow amoo benn problème <coughs> nga ne la yàlla sant dafa dis nangu mënoo ko def léegi nag boo bañalee yàlla ba buñ lay robe dañ lay teg ci kaw waaye bis buñ la suulee jëf ju bon ji moom day force dugg ci bàmmeel soppeeku jëmm ju ñaaw ju salte ju raglu nga naan ko sori ma bul ma jege ak maa la bañ mu ne mukk man maay jëf ju bon ji nga doon def yàgg ngaa war sama kaw xam nga yàlla da ko tegoon sa kaw ah? yow nga war ci kawam topp bànneex rek yàgg ngaa wat sama kaw <coughs> tey nag man maa lay wat foofu lay doomu aadama di follee ko jëf ji bon ji war ci kawam di ko mbugal ba pëñ jëm yàlla ba bañu àttee waaw parce que moom moo doon wat ci kaw jëf ji bon si yu ko neexee la daan def nanguutu woon jëf yu bon yi wat ci kawam lu yëg sa kaw mu diis moo tax nit bu nekkee jaamu yàlla foofu moom ay coono foo mu sonn foo mu yëg ne yaramam sonn na parce que dafa am lu ko war mooy jëf yu baax yi waaye jëf yu bëri yow yaa ko war moo tax doo sonn ku topp sa bànneex bakkan nooy sonn yaa war jëf yi nga war jëf ak jëf yi war la du benn jëf dina yàgg ngaa war sama kaw tey nag maay war sa kaw moo tax la nga noppaloon ci àddina yépp danga nga sonn lu ko raw ci àllaaxira waaye bu dee jëf ju baax dafay dugg nekk jëmm ju rafet ne la nga ne ko ay jëmm ji la maa la sopp maa la ne maay jëf yu baax yi nga doon def yàgg naa laa war ngay muñ tey nag damaa ñëw pour nga war ma su ko defee foofu ci ngay noppaloo ba faw moo tax amatu benn coono te moom doo foolee ko mukk da daan war mbindeef yàlla yi fële nga dee di war say jëf am na roxo yoo xam ne yàlla si picc la leen def ñuy naaw gis nga war rek di xewli waale ci xewli balaa seen jëmm yi di ñëw mm-hmm. kon nag buñ bëggee war te duñ wàcc mukk mm-hmm. dañ nangu jëf yu baax yi war ñu kon bu loo yenu nag mm-hmm. yëg diisaay ba kon mënu ne baax te doo sonn yaa ngi dégg يمتنا يرجو لي ديال أهل ومبكم يا ومال وأغل لم يبقى مرسع من وجههم متفق عليها من دبولة دين الحادي عشرة عدي زوفكك بين البيت نموجيكم وكن ينكو جلسيم ابن مسعود رضي الله عنه قال مويه <coughs> قال وانا النبي ينتبه صلى الله عليه وسلم ينتبه نعم الجنة الجنة أقرب موغن جيغي إلى أحدكم دمتي كن سيين min shiraaki naal yi ci xolu dàllam la xam nga dàll boo ko solee am na benn kii nekk si kaw nii lii nekk si kaw dàll bi loolu day jege li nekk si kaw dàll bi ne waaw loolu moo leen gën a jege loolu wan safara mislu zaalika comme moo gën a jege nit ki xolu dàllam safara moo gën a jege xolu daal maanaam lu yomb la pour nga dugal aljana benn waaye fee mbedd ma yëkkati benn doomu ma jox ko ko benn waaye fële mu sonn nga war koo xeetali wan ko gënaaw rek mën na laa dugal safara maanaam luy dugalee aljana lu yomb la luy dugalee safara lu la jege la lu yomb la lu lañ ci nam yéene wuñ tax bul xeeb benn jëf ju baax ndax li ngay def nii di ko xeeb amaana loolu mën a dugal aljana waaye bul xeeb tamit benn jëf ju bon mën ngaa wax benn baat xeeb ko mu sànni la ay kilomètre kilomètre ci biir safara baat bu ndaw bul xeeb li ngay génne sa làmmiñ bi bul xeeb li ngay xool sa bët bi bul xeeb li ngay dégg sa nopp bi bul xeeb li ngay def sa cër ndax mën na laa alak ci safara te doo ko yëg lu ndaw mën na laa safara waaye lu ndaw mën na dugg dugal aljana loolu mooy aljana moo la gën a jege sa sa dàll yi ngay sol safara moo la gën a jege dàll yi ngay sol loolu jege danaa am aljana dafa yomb safara yomb dugg aljana lu yomb la waaye dugg safara lu nga ne jëf yi dugal aljana lu yomb la ci nit ki bu ko yàlla yombalee ci kawam am na koo xam ni tey bu nelawee te julliwu téeméer ràkka dafay mel ni ku def problème mais julli téeméer ràkka lu yomb la ci moom da koy def mel ni defu dara waaye am na ko xam ne ñaar ràkk balaa koo julli mu diis kon mbaax lu mu jafe-jafe lu yomb la bu ko yàlla yombalee aljana lu mu sori sori jege na ñu yàlla na muy dugg aljana ñoom def lu baax da leen ni yomb waaye safara lu mu sori sori ku bon def lu bon da koy yomb lool ku bon su bëggee def lu baax day day métti ci moom waaye bu bëggee def lu bon day yomb loolu mooy aljana lu jege la safara lu jege la maanaam aljana jëfi aljana dafa jege ñu baax ñi daneen yomb da nga ñu ne waa kii dafa mel ne woy daf koo jege si poste bi la koy génne maanaam woy da koo yomb di woy da koo jege trop si poste bi la koy génne li mu bëggoon mooy woy daf ko yomb aljana daf laa jege maanaam luy dugal aljana daf laa yomb safara daf laa jege mooy luy dugal safara daf laa yomb kon luy dugal aljana lu yomb la ci ñooñ aljana luy dugalee safara lu yomb la ci ñooñ safara wala nga ne <coughs> jëf ji lay dugal aljana jëf ji yomb la jëf ji dugal safara it jëf ji yomb la kon leen lu baax rawaatu walaaj bu علي توكلت عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته